auzu billahi min alseytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk yi immigré yi mbokki jullit yi mbokki talibé yi mbokki Sénégal un peu partout ñoo ngi nuyu ñëpp fu fi waay man di nekk ci àddina bi ñoo ngi lay siyaare di la nuyu di la balaax te di la balaax te ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di nuyu mboolem sénégalais yi nga xam ne ñi ngi nekk ci diaspora bi ci fépp góor ak jigéen mag ak ndaw noo ngi nuyu ñëpp di leen jot li sunub siyaar ak sunu cant ci teewlu gi ngeen ñi teewlu ak it waxtu jot ngeen di ko wane di ko fésal ñoo ngi leen ci siyaare bu baax waaye ñi ngi ñëw nag tey ci sunu émission immigré ci numéro 209 war cee ñëw nag ci am njàngat ci ni ñu ko baaxoo defee ca fañ ko tàmbalee ci numéro un ba ba agsi ci numéro deux cent di ci sant yàlla bu baax bi ñu ci mayee ñu mën a taxaw walla ñu toog di ko def muy tasaaroo ci àddina bi fenn fu nekk ni di ci jot di ci jubanti bu baax a baax a baax loola rek doy na ak sant yàlla ndax léppit bëgg rek nit ñi jub moo tax waaye nag jub ci loxol suñu borom la nekk ndax wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka laa tahdi man ahbabta walakin laahu yahdi man yasa wax na yonent bi sallallahu alayhi wa kat du ceegi ne ki nga bëgg mu jub rek mooy jub waaye man yàlla may jubal ku ma neex ci nu ma nu ma soobe kon nun dañuy barkeelu rek ci waxi suñ borom jooju tabaraka wa taala ndax it bëgguñu di def émission boo xam ne si dañ koy joyal rek jëme ko ci genn wet goo xam ne si mën nga cee bañ a sentir diine ndax ay référence la ñu joxe te référé référé ki ñu war a référé wu dëgg mooy yonent bi Moustapha sallallahu alayhi wa waaye laata loolu lépp ñu koy mën a développé rek da ngeen may may mën nuyoo mboolem immigré yi nekk ci àddina bi te ñuy déglu te di ñu safoo di ñu bàyyi xel ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax nag waaye di tàmbulee rek ci Europe ci réew mii nga xam ne ci lañuy ñuy àddoo muy Italie waaye ci région Toscana waaye ci dëkk bu ñuy wax Santa Croce Sull'Arno à côté des Pontedera ak Fucecchio ak San Romano ak Castelfranco de Soto waaye ñu ngi nuyu mbaa waa Italie gépp waaye nag particulièrement di ci beral ab nuyoo waa Janwa Janwa maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ñi nga xamante ne ci jot na ma gisanteeg ñoom ci màggalu kastu Rajab bu Cheikh Mamadou Fadal muy guddik rañaan nga al isra wal mihraj waaye sénégalais bu la ci gis rek automatiquement rek day daal di am fierté ci yow te nag man li ma jaaxal ci senegal yi Sénégalais yi lay wax am na ci ñooy sama sama voix rek buñ ko déggee automatiquement rek dañ lay xam ndax li ma yéem mooy nit ki dégg nga wax nuyoog nit wala ngay wax mu dégg ko wala ngay wax ak moom mu ne la yow mii de damaa mel ne dama laa xàmmee te man ku wax dama laa xàmmee rek damay xam automatiquement ne ci waxtaan wi nga ma xamee loolu nag xam nga ne wax dëgg yàlla ku lay bàyyi xel doo nga ko xam. ndax ki lay bàyyi xel bay bàyyi xel bay xam bay mën a jàpp sa kàddu xàmmee la ci kàddu kàddu te du image du leneen wax dëgg yàlla la moom yitte la kon mboolem Sénégal yi nekk ci àddina bi waaye particulièrement di ko jagleel waa waa ndax lu ma juróomi nit yoo xam ne si keroog kenn ku nekk wax dëgg yàlla ñëw nga saafoonteeg man fa ma nekk te am nañu da ngay toog rek nit fekk la fa ne la Moustapha gi na nga def xam nga loolu nag wax dëgg yàlla ku mu mbég te dara dootu la doy ci mbégte ndax kii wax kii déglu la lu bëgg waaye kii déglu ba pare nag jële ca njariñ ba pare di la xam naa du ma mën a jaar ci tur yi ndax bu ma jaaree dana am ñooñ seeni tur jëppuma ko waaye daal waa jan waa moom waa jan waa moom ci màggalu Kazu rajo gi maa ngi siyaare mboolem koo xam ne si xamante waat nañ fa ña nga xam ne xamoon nañ ma te mënuñu maa gis yàlla dogal wommat ma ba ma dugg ci seen place yàlla it wommat leen bañ fekk ma fa ma toog alhamdulilahi rabbil alamin waaye particulièrement nag maa ngi ciy nuyoo di ci siyaare sunu xarit sunu sëriñ muy sëriñ seex mu soxna ummi moom sëñ ëboo moom seex Mamadou Fadal maa ngi koy beral ak cant goo xam ne si am na tàmbali te amatub yamukaay ci xol bu rafet bi nga xam ne am na ca moom ako woyof te diis gann te mat sëkk lam doon waaye xool gam nu xool ba xàmmee nu ba jaar ci sunu tur woolu nu ñu ñëw ba toog ci moom ci bisu Kazu boobu duñ ko mën a fàtteeti ci sunu dund mukk dugal nañ ko ci sunu istiwaar te ku ñu yàgg déglu te ay moroomam nag bari na ci lool man nag li ma gën a tee santate yàlla mooy nit ñu baax ñi rawatina sëti sëñ Tuubaa yi nga xam ne wóor na yàlla la wax ne bis bu dul Kazu Rajab bi sax su ma doxee ba dajeeg ñoom ci événement dañ may wolu wallahi xasim am na sëtul sëñ Baara bu nga xam ne si damay fàtte tur waaye jàppoon naa ko lool xam naa ku déglu émission bi boo ca àggee nag ma joyanti ñoo dajee ca màggalu tuubaa Triste muy ku ku ku yew man damaa xamul sëñ Basiiru la tuddati waaye dama fàtte tur bi waaye bu fekkante ne ku ci jàpp tur bi rek te xam ko na nga ma dimbali ngir yàlla ak jëme yàlla ji yónnee ma turam moom it nii nga xam ne sëriñ seex moom soxna ummi moom sëñ abuy moom sëñ euh, abo xalifa seexul seex moom Mamadu Faadal def noonu la ma defoon moom tamit ci màggalu Trieste jox ma cirub moo ma woo woo mbooloo mi ne jox leen ko kàddu mu terale ma loolu ma sant ca loola lool lool lool sëtub sëñ Baara ak sëtub sëñ Fallu ñoo ma defal lii ci Italie ak ñu baree bare bare ñoo xam ne si ci njabootu Serigne Touba gi la ak ñi nga xamante ne si ci njabootu Sidi El Hadj Malick lañ barke Sëñ Touba Mbacke maanaam dal maanaam tam cant gi daal bu ma ko bëggee yàbbi fii li ma bëgg a wax ci émission bi du jàll. maa ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaye Kazu Rajab gi moom spécial Kazu Rajab la moom ci sama côté man waxuma la daal mais euh, taabal ja nga xam ne tegoon nañ ko nga xam ne ca la ñuy dalal. ñi nga xam ne ñooy conférenciers yi ku ci mel ne sëñ Amsatou Diakhaté ak ñi nga xamante ne si ñoo ko accompagné ñi sëti sëñ Touba ki nga xam ne moom la ñuy wax euh, Serigne Moustapha Mbacke imam bu Milan ak euh, imam euh, Serigne bi nekk Pontevico Brescia waay waay waay xam naa ko bu baax waaye sama xel fàttoon na ba fi ne tur yi mënu ma cee jaar nga xam ne moom it tamit ñoo bokk. benn barab buñ toog te foofee man du sama place waaye nag keroog laa xam ne nag yàlla moom am nag fay te ku mën a teral nit la waaye ñoom tamit ñu mën a teral doomu adama te xam wàcc waaye doomu adama ci wala xadd karam naa bani aadama ndax bu ñu xamul woon loolee man foofee du sama place mu fa mën a toog ñuy xool seen jëmm yi di ma xool teraanga ji ma am ci Kazu Rajab bu Italie gii ren jii teraanga jooje daal yàlla naa ko bokk képp ku baax yàlla dogal it nag daaray kaamil jii ma doon woote ca ca depuis mois de safar ba la sëñ Mouhamadou Fadel doon wax nan faytoo faytoo ni mu indee màggaloog Touba ci biir tuubaa nga xam ne ne kenn ku ne fa nga nekk nga ko daan def waaye mu terale sëñ Touba jëmm jooju ngir bëggum bëgg sëñ Touba ba sëñ Touba fay ko kasu rajab gii kasu rajab googee nga xam ne man ci laa ubbi daaray kaamil jii ma doon ubbi ca Touba yàlla xam ne ci la ma terale ya teraange jii nga xam ne mooy li ma leen nettali sànq kon nag waaw sëñ Fallou Mbacké sëñ Fallou Mbacké imam bu Brescia am sama xel dikk na ci sëñ Fallou Mbacke imam bu Brescia ñoo ngi koy nuyu bu baax ak ki nga xam ne mooy oustaz Alioune Sall mi nga xam ne moom it ñëw na fa maanaam nga xam ne ko ko xool rek lu baax dong nga mën a gis ci moom imaasam dong dafa day day xirtal nit ki ci mu bañ di boddante wala mu bañ di maanaam par parloo mu nekk lu am solo loo xam ne si bu mu dikkee yitte je ko nit ña may xam na ne moom lu baax rek ko mën a moo ko moo ko mën a defal loolu ak sëñ waa daan ñoo Jóob ñoom ñu nekk Brescia accompagne nga xam ne moom tànk jéego bi foo ko gis fu mu seqee ci lu baax dong la koy seq sëñ Wadane Diop bu lu mel sànne bu Brescia ñëpp xam ngeen ko ku am fulla ak fayda nag fulla ak fayda nga xam ne moom ay tappalee caaxaan doo ko ci gis mukk te liggéeyam bii muy liggéey ci Italie ni ko ñëpp liggéey la koy liggéey ba pare di fi liggéeyal diine di jàngale fi alxuraan di dem ci barab yu baax bu sëñ Wadane jóob daal barab bu baax boo gis da ko ca gis ak fu mu mën a nekk ci Italie yittee may na ko lu mel noonu kon alhamdulilah rabbil alamin kon xam naa dix minutes yi jëkk yi moom foofu rek laa koy yamale te xam ne ni duuf ci nag li xajul ci bi tey nag fii ñu war a ñëw nag ci numéro bi nga xam ne tey soxal na immigré yépp mooy gaspillage bu bari bi nga xam ne ñi ngi koy def ci réew mi gaspillage ni ñuy gaspiller alal ca ba immigré sosoo ba nëgëni bu ñu jiitaloon am xel di waxtaan di dajaloo di booloo di am luñ bëgg a taxawal ci ñaq wi nga xam ne ñu ngi koy ñaq ci réew mi moo xam ñu nekk ci diitaa yi la moo xam ñi nekk ci commerce bi la moo xam ñi yor seeni place di jaay moo xam ñi am ay place di jaay ci marché hebdomadaire yi moo xam ñi ambila moo xam façon ambila bu ñuy def maanaam ensemble de immigré yëpp l' ensemble de immigré yëpp daal ak kenn ku ne ba nga yëngu bu fekkoonte ne gaspillage bu bari bii ñuy def ci réew mi ba mu sosoo ba nëgë ni amoon na njariñ nëgë ni fekk na mu jariñ bu yàgg waaye nag amul njariñ gaspillage bi benn njariñ da ko amul te gaspillage bi danaa ko détaillé te gaspillage bi ci ëpp mooy dajaloo gii ñuy dajaloo di woote ay cant ak a woote ay màggal woote ay cant woote ay màggal ak yeneen bis sax yu bokkut ak ñaari bis yooyu waaye dañuy fekk ci ñaari bis yii loola nag gis nañ ne yàq na ci réew mi yàq goo xame ne ki nii immigré bu dem ba lompooñ ba daanu tey jii ba nga xamante ne si kenn mënatu laa jariñoo mënatoo jariñ kenn ca foofee la ndey ja sos eh, dëkk foofee la yëf yi juddoo te yàgg naa ko wax ndax dara boo ci nekkee à l'âge de trente ans dem ban am l'âge de soixante dix ba doole nekkatu fa wér nekkatu fa te santé yit nekkatu fa waxtu jot ku la xool xam na yow mii am na lu la gaar ci wàllu santé waaye dafa am idée bu nekk ci ñun boo xam nekk nii kuy màgg moom ngay màggaale te loo gën a màgg muy gën a nekk ci sa biir yaram mooy ñàkk wóolu sam réew ndax say idée ak sa vision ba tax na loo gën a màggat fi ne séjour bi da nga koy configurer bu ñu waxee nga ne wala nga ajoor ne ko bu ñu waxee nga ne bu ëllëgee bu ma fiy fajo si bu may nangam nga xam ne sa dund gépp jël nga ko jox ko Europe jox ko bitim réew sam réew sero réew moomee nag dëgg la amuñu état bu baax waaye ñun am nañ ca responsabilité niñ ca amee maanaam fierté ci lay doxal réew ma suñu loxo dugg ci it la yàq réew ma it suñu loxo da caa dugg bu baax te waxoon naa lay defar réew ma moom waxoon naa ko muy fexe ba nekk taxawal ay ay ay societé waaye bala ñoo def ay société dañuy def ay formation ba idée idée mën a dugg te idée la ci jiitu mooy xam-xam xam-xam boobu bu ñëwee bu ñu tàmbalee def dara kóolute da cay am gu mat sëkk ñu wutal ko sécurité boo xam ne si kenn du sañ jël di jalgate wala ko jalgate ñu teg la sañ yoo xam ne si bu ëllëgee keneen dutu ko ñeme waaye yàlla baax nag ñoo bokk sëriñ ak mu ñël ak borom kawar gu ñuul ñëkkul dara ak xeet yooyu ñeenti composement composement yooyu lépp luñ fa taxawal ci société yooyu ko yàq mu ñël maanaam kawar gu ñuul ñàkkul dara kii sa mbokk la sañ na laa lekkal sañ na laa defal nangam société bu fa daanu ko daanal yéen ñi bëgg a xam li tax mënee su la installé ñeenti éléments yooyu ñoo ko yàq muñal boroom kawar gu ñuul ñëkkul dara yàlla baax na waaw moo la sañ a lekk lii ku yàqu moo la yàq complot boobu nag ñi ci adhéré wu dafa bari intégré wu waaye gaspillage bii nga xam ne wax naa ko nag ci màggal yi ak cant yi nañ ci jël rek genn màggal wala ñu jël ci cant duñ tudd màggal nag jëmmi màggal ji la ñuy tudd ñu ne tey dañuy màggali ca Bérésia xalifa diw wala kër diw lañ fay jëmmalal ak màggal te màggal man la ma ca xamoon bu fekkente ne xam nañ baatu màggal ni ma ko xamee te baatu màggal googee ñu ko defee noona mooy jariñ ka nga xam ne moo fi nekkoon moo fi nekkoon mooy lam daan yëngu ñuy fàttaliku ko ca loola bu dee jikko yu baax yu nekk ci moom ñu jéem a jël jikko yooyee kenn ku ne installé ko ci sa bopp ku ci mel ne Cheikh Mamadou Fadal moom kenn ku nekk xam na ne lépp moom dara génnu ci lu baax ki nam daan waxee nam daan jëfee nam daan jëflanteeg nii loola lenn lu ñu ci jëloon roy ko ca bu soob yàlla bu yàggee lépp dana baax waxuma laak nag mu daan jëflante waxuma laak jaamu yàlla ga ak yeneen ya ca des ak mu fonke woon alxuraan ak na mu fonke woon xam-xam ak ni mu daan terale nit yooye ku ko détaché woon par pièce kenn ku ne jël ca benn kepp di ko jariñoo loola dana la jariñ waaye dana jariñ Cheikh Mamadou Fadal waaye paa nag dajaloo comme nii mu xewe léegi nga xam ne léegi lañ ko dugal ci yoon yi ba mu mel ne mu ci la bokku ci luñ ci takkal dong la luñ ci daax la waaye bokku ci dajaloo woote góor ak jigéen dajaloo ñii di wut ay déguisement ñii di wut ay der yu mag di ko takk di mandargaal ne ay taalibe bi mu saadeex lañ jël ay photo taf ca def ci ay mbind góor di ko sol jigéen di ko sol ñuy dajaloo ca waañ wa di togg di tàngal ay kafe dégg nga sol déguisement yi dajaloo ci bis bi jigéena góor di dajaloo moo xam ñu mag ñi moo xam ñu ndaw ñi la kuy ñëw indaale sab or ba mu fees dell takk sa njël teg sa gerefaas sa prig boo xam ne que nii da nga ko def comme boppub góor xeesal saw yaram ba mu weex tall nga dikk fa indaale fa euh, loo xam ne mu ne su ko wax boo dikkee doo fa julli doo fa déglu waxtaan doo fa jàng alxuraan yaa nga ca njaay ma yaa nga ca séddaleem kafe ma yaa nga ca coow la yaa nga ca foto ya di fotowu wëlbatiku loola lépp gis nañ ne yàq na fi lu dul jeex kooka nag jóg ñu luye ab kaar dëkk ak dëkk te la cay nekk feesul kaar ba ñenn ña jël seeni oto dégg nga ñu daldi di jël ay kilomètres yu sori su ñu dikkee daldi wàcc fekk nit yi ñuy jàng alxuraan ñu ne dañuy wane ne dañuy nuyoo dikk def ay sikkar wala ñuy jàng ay xasida ah di déranger nit ñi la muy nuru nuru lu baax loraange képp a ciy mujj kon benn point nga noonu su ko defee dëkk bi ko organisé dana luye ab saal te weer yu yàgg la koy wut saal boobu yi ñuy luye nag waa commune bi rek a ci jariñu ndax xaalis bu weex tàll ngay fay te du n'importe quelle heure nga koy am da ko wut ay weer di ca dox joxe koosin joxe ay garanti wax la nga fay defit lan la su ko defee alal joojee alal la yoo xam si du société buñ taxawal muy dem di meññi ñu cay jëlaat di ko dugal ci lii lii di génneewaat loo luy dugal ci société boobe loola amu ci maanaam société bi daal maanaam lamb poos la laaj te ñay joxe mooy ña fi jiitu woon te seeni di dund waaye gone yi bees yi ñu fi indi moom tubaab yi yàq nañ seen installation ba dara kenn mënta laaj ñaari salaamaaleykum ñu yëkkati ko joxe mag ñooñee nag ca lañ daan liggéey la ñuy joxe dem nañ ba retraité ci seen pension yooyu la ñuy génnee di joxe te bala ngaa dajale fi mu toll nii 1000 oro lu ne da ko daj ay weer soo ko defee nag ba nit ñi génnee seen doole yëpp jox la nga luyee ko saal commune bi nga dimbali mu des nag li nga xam ne mooy wàllu consommation ba ci wàllu alimentaire ba ca togg ya ñay togg muy añ ak waaye la ko jiitu mooy ndékki ak ya ca yow koy accompagner ci biir ak kafe yaag meew ya lépp ci réew mi lañ ko jënd loola bip see boppam la moom it dañ koy jënd yu bokkut ak saal bi bokkut ak kaar yi ñuy luyee di ko indi te lépp ci communauté mouride lay lay ñëw loola ndax ki nga xam ne moom la ñuy wooteel bés bi boo xoolee li ma fi lim lépp moom lan la ci am ndax li ñuy togg ñoo koy lekkat te togg gi day dem ba ëpp su ñuy dem dañuy wetti wett gi dañ koy yàq te wett li ngay wetti wóor na leen ne boo ko taajoon Sénégal am na ñu ko mën a lekk même bu faraxoon mën nañ ko lekk léegi li nga xam ne moom lañ jënd ci ay fruits ay pomme ay tàndarma ay yecce ajoog ay boison bu ñuy dem ay carton moo ciy des carton yooyu nit ñi ñoo koy jënd di ko yóbbu di ko ñoo koy jël di ko séddewaat di ko yóbbu ci seeni kër di ko dundewaat loola kon ki ñuy woteel bis bi moom lan la ci mën a am dara la ci mënta am su ko defee ñii ay jaaykat lañ fu ne la nit di jóge ku ne lu ne la nit di jaay te lépp ci ndodd immigré yi lañ koy génnewaat te bu dikkee njaay ma ni jaay ca Sénégal lu ñuy jaay cent franc fii ay dix euros lañ ko fi jaaya ñi nga xam ne it dañuy dundaat ci diine ji la ñuy produire te la ñuy waxtaane wala la ñuy jàng bu dee jàngkatu xasida la bu dee waxtaankatu diine la dañ koy def ci ay kele ay jumtukaay xam nañ ne lii moom garab gu taxaw la ku neen yóotul rek wat wat doom ba nga bëgg kenn ku nekk dikk ñu ne diw ñëw na day jaay nangam kele nangam la koy jaayee waxtaan moom yi def waxtaan te waxtaan yi foo dugg ci internet bi fekk ko waaye nit ñi bëgg noo jub ndax bu fekkoon ne waxtaan yi ñuy jënd wala njàng li ñuy dégg def leen a ñor war naa bàyyi ci ñoom effet waaye deful ci ñoom dara waaye jëm yi man diw ñëw na fi rek am naa complexe bëgg naa ko gis wala bëgg na maa wax ak moom taax na li muy jaay duma ma ko contourné nga yëkkati la muy jaay jënd ko te bu na boo demee sax doo ko def ci sa téléphone bi sa sa sa sa amoo temps boo ko boo koy dégloo su ko defee moom tamit dana fa jaay lu bari ndax tur tur wi mu yor mooy jaay mooy jaay loola waaye du jëmmi kele bi ñuy jaay wala CD bi muy jaay wala cassette bi muy jaay su ko defee loola gis nañ ne yàq guddul jeex la goo xam ne si am na xam nga wax naa saal yi wax naa oto yi ñuy luyee bis yi waaye wax naa ñi yor seen oto yi def ci seen i carburant ak daje gi ñuy daje kilomètre ak kilomètre ay deux cent kilomètres quatre cent kilomètres trois cent nga bàyyi sa liggéey ñëw ci loo xam ne si ba nga fiy ñëw joxe nga sa cotisation boo dikkee fii da nga topp jaaykat yi di jënd léegi nag lan la ci borom bi am bu dikkee nag li nga xam ne moo ci gën a metti gën cee doy waar da ngay gis ne bu nu dikkee ne dañuy jàng alxuraan ab jum bu néew a koy def. boo fekkante ne téeméer de daje nañ fa juróom benn nit ñooy dajee fa ñuy jàng alxuraan ku dikk àndaale sab saak daal di teg ferankalaayu jël ab jukki ñu jox la ko nga di ko jàng ci njàngin woo xam ne ci wër na la lii kenn doone jàngi alxuraan ndax du teggi ne ndax sëñ Tuubaa na mu waxee ne jàngee ci alxuraan ca masaalikul janaan ferankalaayu walla nga bank say wum mel na kuy julli jublu penku mustaxbalul xiblati saata rabbuhi noonu mu ko waxee ci jàng addim tilaaw ak kii ni muy ni mu jàngale tegg tegg ni jàng alxuraan loola lépp du am da ngay tàllal say tànk mën naa sam jàpp mën naa toj nga gàddu sa sa sa sa sa kii bu ndaw sa caag su ndaw def ca sa téléphone te yow ñaari foo yoo lemmi ubbi téléphone bi yëpp ñaari message vocal ci ñaari wokaal soo demee ba vocal yaag téléphone ba dominé da ngay jël téere bi teg ko ak côté génn ca bitti wax a wax wax wax lu mat 30 minutes boo paree lakkaakaay foofu jaay joxekatu café bi ñëw nga jël sa biker daal di naan dikkaat jukki ba doo xamoon foo tollu nga daal di jël jël ñorom ñorom daal di yëkkati joxe njàng moo xam ne si di njàng mu sell te ñu néew koy def te kilifa ya fay ñëw nga xam ne dañ leen di askanale mbokkum ki ñuy màggalal ñoom buñ dikkee joom rus nañoo laal téere yi dañuy kawe kawelu ci kaw téere yi di kawe kawelu ci kaw njàngum alxuraan bi di kawe kawelu ci kaw nit ñi léegi nag ñooña bu nu dikkee dañ leen di parasanté jël rajo bi sëñ diw ñëw na buñ jullee ba pare nañ ko siyaare sëñ diw ñëw na nangam ak nangam alxuraan ji ak bis bi ki tax ñuy wote moom bàyyi nañ ko fàtte nañ ko kon bis booba lan la ke ñuy woteel lan la lan la koy jëriñ dara la ko dul jariñ te loraange ji ci ñun lay nekk su ko defee ñu tuddee ko ak màggal nag su ko defee loola gis nañ na yàq na lu baree bare bare kooku bu dikkee du laal alxuraan bu dee julli moom la ñuy jiital te mën naa am am na juróomi juróomi julli yoo xam si moom ba mu nekkee këram moom dong faat na ko nga ñëw ñu ne ko jiital ndax lan yow kat yaa sant sant sangam te diine du doxee ci aw sant diine ci ragal yàlla lay doxee ndax yàlla ne ne inna akramakum hindallahi attaqakum diine ci ragal yàlla waaye suñ diine Sénégal nag mu bokkut ak diine ji nga xam ne mooy diine Seydina Muhammad ndax daanaka référent référé yi ñu doon référé ci Seydina Muhammad moom lu ci bari dañ na moom ba waxoon naa sax benn bis neen yónnent bi de guddi yi ñu toll bu ko fi yàlla indiwaatoon ne ko tàmbaleel Sénégal sa woote na nga doon wootee Makka tal mu karaba yaakaar naa ne bu taxawalee xare bu wootee moom bu wootee du gis kenn ndax daanaka mën naa ne ay naaféq dafa bari ci biir Sénégal dañuy tudd diine waaye duñ jëfe diine diine làmmiñ la waaye du diine pratique moom wax la luñ def moom daanaka Sénégal la mënatoo ko ci gis luñ la wax rek ak ay nar la ak ko war moo ko lan loola kon nag bu nit dikkee faat ay waxtu ñu ne ko yow kat bis bi comme mbokkum ki koy def nga doomi diw nga sant sàngam nga sàngam jiita nañ la jiital te amaana kër ga wala hôtel bañ ko dalal te nag fàtte naa délégation yi jóge ci biti ca Sénégal nga xam ne waa daayira bee dagg bi waa daayira bee dagg bi bu ndikkee dañ leen di baral seeni berne buñ fekkee njàngum kaamil bu duñ ci jàng bu julli jotee ñu jiital leen buñ paree sëlman nañ dem ñaan dem ca otel ba ñu luyee ko lu seer loola muy leneen lu fekk si lii ma njëkk a tudd te lépp ci loo loosi moodu yi dong lay génne kooka fan ngay amee temps wala fan ngay mën a réserver wala nga mën ngay dajale loo xam ne si danga mën a am xalaatu mën a dem Sénégal installé ci jéem cee liggéey moo xam commerce la moo xam transport la moo xam wàllu agriculture la nga jéem caa nekk. wala transport euh, euh, wala wala wala euh, import export di jënd di yóbbu di Sénégal kañ ngay am boobu temps loolu lépp màggal yeeg cant yi ñoo ñu ko teg màggal yeeg cant yi képp su ko defee jiwu lislaam mi nga xam ne mooy gone yi nag ñi nga xam ne dem nañ ba màggat yanoon nañ seen njaboot yépp tubaab yi campagne leen dem leen andil ñu gone yi comme yéen rey nañ leen ba seen i rangooñ di génn seen i bët di laas amatul leen njariñ toog leen fii nag séjour bi ngeen di ko fajoo yéen waaye am na ci ñooñu sax dañuy wax ci dañuy fexe ba bu bundaxatal leen bañ delloo seeni kayit su ko defee contributé yi ñu leen waroon a fay tubaab yi tëdd ci ndax tubaab moom seexluwul dara ndax gëmu diine gone yooyu ñu indi leen jënguñu alxuraan dugal leen ci école tubaab yi buñ nee cuub daal ne cappet génn ñu tàmm leen ne yanub saak ñu dem di jaay wala ñu def lu ñàkk fayda walla bu ñu dikkee seen culture ñu génnee ko ci ñoom ba duutoo ko mën a jariñoo jom ji duutu ci nekk dara duutu ci nekk gone yooyu ñoom tamit jiwu bi dañ leen di indaale ci màggal gi ñu nekk fay yuuxu góor ak jigéen àndandoo di yuuxu dégloo leen dégloo leen ji day mel ne xëy bu dara di lu nag allahu akbar moom ree da lay jàpp moom fuñ noddee rek taxawal nañ te nodd moom wootee la woote nag boo defee da ngaa war a xaar boo xaaree ba ki ngay woo ñëw nag ngeen door a ànd ci liñ koy woo waaye buñ ne allahu akbar rek ñu ne defar leen sàppe sëñ bi jiiteel daal di laal sajaada gi xamuñu fi penku nekk te man li ma gën a jaaxalati mooy réer gi nekk ci communauté senegal yi ak màggal wala barab bu nuy jaamoo yàlla wala foo xam ne si jaamu yàlla dala fa dam nga di ko def sa kanam dara waru cee taxaw lu lu suñ borom waaye lenn lu ñu rog seet ko doo ko def waaye nga jël photo bu mag a mag a mag dem ba ci xibla bi fi ñuy jiitee nga jël photo yi ne fi dajji te yow mi nga xam ne yow lañuy wax yaay jiite lii wane na yow mii doo ab jullikat amoo amoo fitu taxaw di ko corriger waaye am na ci ñoo xam ne si bu ñu dikkoon tey ci kër dong di julli bu foto nekkee seen kanam ñu ne tàppi leen ko luñ mën nag noonu murid di moom loolu moom ñoo ko dàq ñëpp jël ponkalam foto taf ko ci fi nga xam ne mooy xibla bi booy julli julli ñuy julli ñépp seen bët yi ci kooku lay tegu ana tawhid ba te ñu wax ne ne booy julli sax dara warut dox sa kanam waxuma laa ngay taf dara ci sa loolu dafa nekk loo xam ne si yàq na lu baree bare te danañ ci dem ba suñ doole jeex te ñi ko doon def ñëpp te reete reete boo demee Sénégal ñoo toog ca taati neexmaa ya wut seen banque bu gudd teg toog kenn ko ne di nettali sa parcours ci réew mi mën da dëkk sangam laa nekkoon koo gis nag ma ngaa ko dokk moom koo gis buy dox mi ngi mi ngi wengalo soox ña daan jaay te seen mbagg yi saag yi jàpp leen bu ñuy dox dañuy wengalo loolu du seen bind liggéey bu diis baa leen ko ñenn ña seeni bët di jooy ñorub dokk bu ñu dox di di soox ak def régime alimentaire nga xam ne lu bare bare na nga lañ ko tere fabrique yi ñu doon liggéey moo leen ko teg loola nag boo ca boolee liggéey ca jeexal ci sa dund di di lekk sa retraite retraite ba lekk ko du yàgg te boo xoolee dara loo def ci Sénégal lu dul kër goo fi tabax te kër ga goo xam si maanaam rakiste ba maanaam dong mënatoo ko léegi la koy rakiste ca seen baag raax bu dajji ko baag yëpp mënatoo ko def matériel ba nga defoon ci bépp boo demee jaay nga lépp télévision baag yëpp jaay nga ko oto ba jaay nga ko ya nga daan toppandoo yëpp moom teel a investir jaag nga nekk ci théorie yu bon yi rek nañ dem sant nañ dem màggal ngay waxtu jot loo liggéey ci weer wi gaspillé ko ci xeeti phénomène yooyu loolu gis nañ ne bari na te sëñ Mourtada Mbacke yàlla na ko yàlla dolli yërmaane dimbali nañu ba sonn ci réew mii wax ne bu ngeen dikkee na ngeen fi fexee def barabu jaamukaay ndax nit ki fu mu nekk dafa war a accompagner diineem loola sauvetage la bu ñu defee barabu euh, jaamukaayu yàlla jàngukaay ak jaamu yàlla ngi ñu jël suñ ndaw yi nga xam ne mooy ñii ma doon wax gone yi mooy jiwul islam bi di ko farawale buñ jàngee seen diine danañ xam te buñ xamee danañ am jom te buñ amee jom danañ sàmm seen ngor te buñ amee seen ngor buñ liggéeyee danañ ko mën a wut fuñ ko dugal ndax lislaam moom bunt yëpp ubbi na ko waaye noonu daal xamewuñ ko ñu dëkk bu lakk ñu taxawal oto sowe ña doon waroon a waroon a lakk andi leen fii wutal leen ab xayma di leen xont di leen jox ay lekk ak naan noonu daal suñu immigration bi loolu dong la xont koo ci gis daal fii na problème mu maanaam dund rek ko ñor waaw am na loolu dama ci dul mën a jaar cent pour daanaka ku ci dund yomb fii képp ngi génn réew mii du yomb fu ñu waxee ci mbirum séjour yi bolakaat sa àddina tukki na te waxtu jot yaa ngi dem ci gaal ga di ubbi di wala nga làmb say poste di xool loo xam kayit wi fu mu toll boo déggee ci kayit yi benn lenn loo xam ne si maanaam lu doy war la rek ñu di ko ci wax ci ab lajj buy génn rek sa àddina tukki boo nekkee Sénégal da nga tëbaat donte da ngay dajale alal dem di ko wutewaat billet di ñëw ajornomento bi dong gi leer na ñëpp mag mu am soixante-douze ans wala ko am soixante-dix ans boo dikkee fii na da ngay da ngay da ngay ajorna say kayit xam nga ne liggéey taxatu nga di ko ajorna waaye wóolu woo réew ma nga nekk ndax réew ma ñu nekkit baaxul réew ma ndax ña ko ñoom ñun doo nga yem am na nag ñu am jom ñu baax ñu fi liggéey ba retraité waaye seen diine sënkuwul de xam nga man li ma bañ mooy sa diine nga ñàkk sa diine ba pare di ñàkk sa alal waaye sa alal sax moom bu dee dem ci yi may wax te seen te nga dese diine sax alhamdulilah am na ci diine ji moom duñu ñu tàggoog moom ba ëtt di tukki ci col gaag comportement ba liggéey nañ ba retraité lañ man lépp def nañ ko waaye nag seen diine boo duggee ci seenu xol dara manqué ci waaye non seulement bi daf ko dolli. kon nag mbokk yi ñoo ngi jégalu bu baax a baax ndax euh, wax dafa yombul te boo jëlee dëgg ne dama koy wax moom kooku moom du too ci xool kenn koy koy koo ci bàyyi xel ngir jàpp ni bu ko déggee du ko neex waaye defar gi rek a ñu ci yor ndax li ñuy wax ñun ñii ñoo ngi ci biir man ñii di wax ak yéen maa ngi ci biir waaye nag comme maa ngi ci biir nag sañ naa caa mën a wax bu ma ci nekkul woon di wax mën nañ maa féetale feneen kon ñu yëkkatiwaat xasida gi rek su ko defee incha allah ñu joxante rendez ci beneen numéro.